الى جهه من اي دغه بسم الله دوسيا خليفة سلمى دي اه امنا لو بيش لجا ام دي تربين يني كاينه دوسي خليفة سلمى دي اه رير نجا تربين على يا جوم ولا ما جوم مانيلا اي افوكا وخليفة سلمى دي واخ دا يوم ميرا ميرا كون بمار دي تالي نك على واخ لا سبب لو نيمل دي واخ مانيلا دوسي خليفة سلمى دي امنا اي كاين يو خامني كون ني مي دال دي رير نك على واخ laa ilaaha illallah cay nga xam ne dafa réer day waaw mooy ya nga xam ne nag ay avocat am dañ doon leen kon abày yu nagandiku day liberté provisoire ngir xaaf waaw ak lu jëm nag ci wàllum questionnement ba day xaalis bi nga xam ne kon da koo dugaloon ngir daal di kon génn ca kaso ba tribune yéene kaay ne waaye yow mbaadu nag dañoo jëm kon ci ab musiba mbaaba kumba boo xam ne day méga scandale judiciaire est-ce que sax nekkuñu ci scandale googee looloo jara laaj bu ñu sukkandikoo nag ci avocat bi maître mi ngi xamal nag waa biir national waaw ne kay tiine am na ca lu réer de avocat wu bi day nee na ñun yor nañu ay preuve di ay firnde yu leer ne doyen des juges day yëkkati ne dossier yooyu yee daal di koy jébbal nag procureur de la république nee ma sëñ Bassirou Gueye ma ne la fukki fan ak benn ci weeru décembre 2017 la ko ko jox numéro soit transmis bi kay ngi ni 143 la dañ koo war a leeral nag laa la wax yéen kaa gi ne doyen des juges day bu demee ne cabinet bi ne daal dina jébbal kon kay yëpp procureur sëñ Bassirou Gueye waaw parce que doyen des juges day da caa bëgg a boppam na ca dossier boobee nga xam ne nag moom la ñu tuddee kon scandale politico judiciaire dossier Khalifa Sall waaw dossier Khalifa Sall boobee bu dee lii ñuy wax ne dafa réer kon dëgg la la ay avocat am day mooy ana dossier ya bi di maître Ciré Clédor lii ci tribune yéene nee na gis nga Khalifa Sall mi waaw bu ko nag loo ëpp kon juróomi at de day bu dee nag xel daa tey ca moom lool dañ ko soupçonné waaw doyen des juges tam Samba Sall dafa football nag ak ak yellee fukk Khalifa Sall ay avocat am terminé yéene kaay ne complot d'état nguur gi état waaw daal dinañuy weeti ne nag espagnol yi nga xam ne lañ ne moom la ñu kon ca duwaanu Casamance nee nañu loolee amul uh-huh. laas ne Aly ko wax la ministre de l'intérieur day nee na waaw luy xeetoo ak wàllum viol daal amul te coowal espagnol leen xool Aly Ngouille ca parce ministre l'intérieur nee gis nga espagnol yooyu waa seen xaalis daal lañ leen jëlal waaye takkaay yaak montre yaak yépp a nga ñoom laa wax am na ci ku ñu bi cay Casamance Casamance ko gay Innocence Ntap ci la ko tijjee yéene kaay nee na nguur gi ci a ci dossier Casamance ñii nga xam ne kon ay apprenti sorcier lañu Casamance réew ko tijjee ne Casamance ko gay lañ doon wax na ci wàllum viol ba day a waa loolee ay gàtta la ngir mën a nag métti na de libération yi ne ne rey googee ca ba faa waaw enquête bi wone nan la René Bassène gi René Bassène journaliste bi day téléphone di Ousmane Tamba Ousmane Tamba mi nga xam dafa kon ca kuréelu fuppi Casamance yi nga xam kon ñoom ñoo nekk ca bitim réew gée di waa MFDC te René Bassène day xam nga moo nekkoon chargé de communication ankar. agence Casamance gi waaw moom René Bassène day benn million bu kon ñaar fukki day lañ ko doon fay weeru dee wu ne yàlla ca jamono joo Casamance nga yëngu ne ci la Emmanuel Macron di ñëwee kon fii ci biir réew mi ñëw Macron la ko tujjee ne kaay na Ahmed Fall Braya daal xam naa ne nam ca dugalee loxoom ca organisation ba waaw tax na nag ba waa parti démocratique sénégalais yi ca duwaaru Ndar géejee nee nañ nañ ko suspendre moom Braya nañ ko jëlee gum kon ci parti bi le ko nañ ko parce que waa PDS tuumaal kon Ahmed Fall Braya mii ne Braya Macky Sall ak a ànd ak koo xam ne pexeem yëpp yàq ñaa toroxal sa njiital parti la di Abdoulaye Wade toroxal sa candidat parti la di Karim Meïssa Wade nga dem ànd ak ñoom cay Karim Mamadou Diop Decroix ci la Soleil yéene kaay Karim Wade day dee dellu fii ci biir réew ni ma wóoree ne jant bi penku gii la yeewoo noonu la ma ñëw Karim Wade leeree naan ñu mën Decroix laaste wàllum putooy nga tak transhumance faxamaa ni waaw Sada Ndiaye day daal dinay dëggal ne ne léegi ma nga opposition dafa miti yéene ma jambal jaa ngi day ca diwaanu Pikine gee ak ca Géejawaay waaw na leen juboo rey APR ca Géejawaay mënuñoo juboo APR ca Pikine mënuñoo juboo ànduñu ñaa àndul kay mooy waa kër sëñ ca guy mbind gee Mbàkke Kajoor maar day taali tribune yéene kaay ne màggalu Kajoor gële day waaw boo sàgganee maar day taali lay raam ca ñag wala gi miti moo am kon ci kan mooy xalifa ca Mbàkke Kajoor googe ci diggante njabootu kii jóge fi di Sëriñ Sidi xalif ak ña xam ne nag ñoom ñoo ànd ak Serigne Abdou Kouma di doomu Serigne Baara Xaadimu Rasuul bi ci des yéen kaay gi ne màggalu gi la day waaw buñ ca teelu lay wax waaw si ba mbaaba kuma di ay jàmmarloo mën na fa de laas mitingu franc-maçon yi xam ne kon nañu ko annulé nii lal ko fii ci Ndakaaru waaw franc-maçon yaa ngay menacé de maar dey taal dem naa ca lamb jë la ko ci yéen kaay ne Modou Lo day waaw kon Lac de Guiers numéro de Guiers numéro Modou Lo ne sama lamb jeeg Lac de Guiers kay daa meloon ni entraînement aba sam mbay Ababacar Mbaye Mbaye Ababacar Mbaye Modou xarañ Lo box populi ne Modou Lo day ah, daa gënoon a xarañ Lac lool sax lool Modou loo ne boobee ba léegi nag day ñu ma mag rek laay bëri waxtu wi na jot na ngir ma laale ak ñi nga xam ne maa ñoom ñoo bokk génération ñoom Ama Baldé Sa Thiès wala ñoom Boy Niang 2 <laughs> alaaji Modou Lo daal ak lu ko waay mën a waxal xale la mën na bëre te am na jom ku am jom la boo paree ma ne la alaaji tëjal